dégg nañ ñenn ñi dañ leen libéré di ñaan am yaakaar ne libéré nañ mbooleem journaliste yoo xam ne. ñu yëgee tiis ak naxar bi nga xam ne ñun ñëpp dégg nañ ko te ñu koy métitlu muy lu dal seen naataango groupe Walf. bu fekkoon da doon riitil président sortant monsieur Macky kenn du ko tëj groupe Walfadjri bu fekkoon da doon défendre putsch électoral bi président métitlu li nga xam ne tegaat nañ ko groupe Walfajri mu mel ni président Macky Sall dafa bëgg a asphyxier ay travailleurs marché du travail trente mille emplois créés pour minimum trois cent mille demandeurs d'emploi nouveau jeunes demandeurs d'emploi yiy dugg ci marché du travail. loo ko licence am ba pare. di dénoncer waat di exiger que les forces de défense et de sécurité wala ñenn ci seeni agents yi nañu bàyyi di toroxal journal dafa bëgg a am taxawaayu àddu kalpe te kii di àddu kalpe nag boo buggee sa kalpe bañ a dem ki bëgg a sàcc bu ñu toogee seetaan nag dina sàcc suñu mandat dina foqati suñu mandat dina fi toog ba ilaa yow mi diin ba xanaa keroog rek yàlla naan seen xol neexul koo ci dégg mu ne mu mu ngi lay wax naan dama ànd ak tristesse dama ne ñun waa à la jooy fajul naxar lii faj naxar mooy nañu ànd ngem bu bëre nañu ànd def benn ndaxte putsch électoral la bëgg a def le président sortant président Macky Sall coup d'état constitutionnel la bëgg a def kon di tuur ay rong ne jàkkaarloog moom ne ko lii du fi amee ñoo lànk ñoo bañ du fi am loolu moo tax ñu ne juróomi fan ci weeru février képp ku nekk ci région bu Ndakaaru képp kuy sénégalais ñu lay wax ñun ñëpp ndax dañuy may président Macky Sall li nga xam ne moom la bëgg ñu ngi convoqué député yi nag onze heures ci suba waaye foog naa ne ñun ñëpp nañu daje assemblée nationale ñun ñii nekk ci région Ndakaaru ku mun a fanaani nanga nga fanaani ku mun a dugg biir assemblée na nga dugg biir assemblée ndaxte dañ leen di fàttali ne assemblée nationale suñu ndaw yi muy député yi donc képp ku nekk ci région bu Ndakaaru nañu joxante rendez biir ndakaaru nañu joxante rendez-vous assemblée nationale njiitu parti politique képp kuy mais candidat ci élection vingt cinq février bii di ñëw nañu xeex bi nag du xeexu Abdourahmane Diouf wala monsieur le ministre Mary Teuw Niane de suñu xeex la ñun ñëpp dama ne xeex bi du xeexu may Maïmouna Bousso mbaa Soda Ndiaye du xeexu basiru jomaay Diakhar fay du xeexu Ousmane Sonko suñu xeex la ñun ñëpp mbooleem citoyen sénégalais payoor te am ay jafe-jafe ñu respecter suñu sañ-sañ ci wàllu syndicat te am jafe ñu respecter suñuy sañ-sañ ci biir entreprise. courant deux mille vingt quatre fii ci Sénégal li président Macky bëgg mooy seen coono yéen ñii amul courant jébbal ko tubaab yi. moo tax amuñu ndox moo tax amuñu courant kon loolu waruñu ko wëyal lii tax nag ñu bañ ko wëyal mooy e élection présidentielle am ñun coalition Diomaye président ñu ne c'est pas parce que sondage yëpp nee nañ Bassirou Diomaye Diakhar Faye mooy bu doon loolu rek kon président Macky Sall du mës a nekk président kon président Ablaye Wade day naan du ma organiser élection ndaxte xam naa ne président Macky Sall moo may gagné ñii nga xam ne dëkkuñu biir région bu Ndakaaru ñu ngi leen di wax ne ku ci nekk ñun coalition Jomaay président na nga bind sa bataaxal pour mettitlu naqarlu gouvernance ci bërëb bi nga xam ne moom la ñuy woowee préfecture ci bërëb bi nga xam ne moom la ñuy woowee sous préfecture ak délégation bu takku campagne amatul ngeen won ko ne campagne day am mu ubbeeku fii ci ndakaaru campagne bi comme Tambacounda ak ñoom seen gis nañ seen taxawaay campagne am na def ngeen seeni caravane ci tànk wala ci oto moom la ñun coalition Diomaye Président di xaar ci ku nekk ci ñun ndaxte mbir mi du mbiru Jomaay du mbiru Ousmane Sonko du mbiru Dame du mbiru Moustapha Guirassy ak docteur Lam am na waaye président am na et que Lam Tooro buuru téeméeri at ci ginnaaw la woon c'était un seigneur féodal dans le Fouta médiéval fii nag 2020 mbokk yi ñun ñëpp nañu daje suba ñun ñëpp nañu solu ba rafet nañu xeeñ lu neex daje biir ndakaaru daje ci gouvernance yi ci préfet préfecture yi bu ñu dara tax a dellu ginnaaw ndaxte Macky Sall mooy le putschiste ñun ñooy légaliste yi Macky Sall mooy le mutin moom mooy def mutinerie politique. kan wi dañ leen ne jeexal ngeen pare ngeen gasi game is over ñu ne ñoom dañuy résister waaye fii lañ ñuy fekk lum leen jaral di. honorable Guy Marius kàddu yi am na solo te yaakaar naa fi mu toll nii ku ne xam nga lan moo lay xaar di xamal askan wi que ni kii nga xam leader yu fi jóge fas yéene woon dem seeti ki nga xam ni moo di présidente Aminata Touré pour nekk à son chevet mayu ñu leen sax ñu agsi ñu tàmbali leen di dóor ay grenades lacrymogènes kon bukki bi nga xam ni moo ngi ci réew mi depuis deux mille vingt